chéeraayu prix yi ci marché bi nekk na lu askan wi mënatul yennu fii ci marché Grand Yoff marchandise bi yëpp a yokku madame Cissé di wuyoo ci turu Ndumbe ñu fekk ko muy waxaale ak benn jaaykatu jën dina karlu yokkute dund gi. marché bi c'est trop a cher lu doon jël 5000 francs fi mu nekk nii boo ñëwee ñu ne la 8000 vraiment jën moo gën a cher léegi euh, wàññeeku na mais jën moo gën a cher actuellement loolu laal si jën moom bu subaa dootoo ko laalaat nit ñi dañuy moytu jën dañuy moytu yàpp kon ñu woon dugg ci di ñaan ñu wàññi njëg li boo ñëwee ñoom yokk diwlin seen ceeb seen ah ku ñu jàppale si dundam moom moom mu moom baax de esan marché seen loo am jëliñ mag moom mooy noo amatu moom si biir marché doo dox gis ko Issa Diouf di xamle ni seeraayu dund gi doon na lu ci borom kër yi fépp métti soxna si dëgg yàlla quoi ñun daal ñu ngi mel ne daal ñun amuñu président quoi di yokkal ñi di yokkal ñi di bàyyi ñi xam nga loolu yow du yoon fu nekk lépp seer moom lépp lépp seer euh, diwlin bu doon jàll ay 250 ma léegi mu ngi si 450 eh, eh, xam daal métti jàppale daal dina baax moo gën quoi mu jàppale ñëpp moo yem mu ngi séddale xaalis am nañu xam ne jotuñu ñi jot nañu xam loolu du yoon eh, booy séddale da nga séddale ñëpp yem parce que Sénégal ñëpp ko bokk waaw loolu mais nag defar ñi bàyyi ñi moom du yoon daal dugg dund gi saay su ne muy gën di métti ci soxna yi rawatina ci borom kër yi askan wi